bu ñu nee Lamine Gueye nak xam drapeau chef de l'État mom la fi organiser bu ñu drapeau chef de l'État xel dem ci njiitu rewmi gis nañu ne daw Mbour moko ayé won daw daaw jéeg Mbour moo ko aye ren nag ñu ne eh, Kaolack ñoko ayé aye bu ñu ne Kaolack nekk région Kaolack lañ mën wax nek fi ci Stade Lamine Gueye drapeau chef de l'État nga xam ne Kaolack gëj na ko depuis 2007 te biñ koy mujjé aye 2007 boobu par individuel la won tay nak ñu ngi fi nek équipe bi nga xam ne équipe bu Kaolack bi nga xam tay ñom ñoo recevoir drapeau chef de l'État bu ñu ko waxé nag mu nekk 14 raisons ci Sénégal tok ak ki nga xamne mo nek entraîneur équipe bi nga xamne mo wara participer ci li nga xamne moy drapeau chef de l'État ajuma ma ngi lay nuyu dila la nga nuyu ak askanu sénégalais nga xamne ñu ngi lay ñu ngi lay téglu ci site sin Saloum Info rawatina nak tay ngeen équipe bo xamne ngeen wara ñew drapeau chef de l'État mu nek sa biir dëkk. Eh, da ma ngi ma ngi lay nuyu dila la guddu fan ak wër ak sutura de su alaaxira di ñaan ah, di nuyu jeman di nuyu dam dila la bu baaxa baax di la sama ñaari dom bon na maa leen di gërëm bu baax a baax maa ngi nuyu Sénégal yëpp surtout nag particulier waa Kaolack waa Sénégal si Saalum maa ngi nuyu den baal wax den baal ak di wax ne ñu ngi nii tey drapeau chef de l'État tey eh, ñu ngi ko war a def fii tey Kaolack ñu ngi ko demoon ñu koy defoon 2017 euh, la woon léegi nag ñu ngi koy mille def 2000 2021 actuellement bon euh, Kaolack région de Kaolack tey moo aaye maa ngi ñaan ñëpp di oo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di oo ñëpp nag waa doomi Kaolack yëpp doo Sine Saalum ñu jàppale ñu jàppale seen bopp xam ne seen doom yi tey ñoo war a jongante ak région yi 14 régions yi 14 régions moo fi tase fekk si Kaolack nag bon tey tox su bon la Sagne Mbareer mu neex daam. gis nañ ne 96 ba léegi yaayoo équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Kaolack bi ren lan lañ mën a seetloo ci équipe bi nga xam ne tey moom nga yow ndax am nga ci équipe bi yaakaar. non chaque jour damay am yaakaar am confiance parce que li tax daam euh, ñu rek xam naa leen óolu naa leen suivre naa leen topp naa leen boo xam ne ay ma jël leen indi leen Kaolack bon équipe Kaolack vraiment content naa ci chaque année nak mako yob yóbbu may may indi équipe bi depuis 96 ba tay équipe fu dem mako yobou yóbbu indi ko ñata yon la ko indi fi jël na jël na drapeau so ta fi yaakaar naa ne trois fois la ko jël par par individuel waaw fu nak actuellement buñu commencé individuel ba tey jëlaguma ko way ma nga ñaan yalla rek nak ma jël ko way chaque année nak ma may yëg podium indi ay médaille yaakaar chaque année ma indi médaille or combien de fois. Kaolack biñ ko defee par équipe ba léegi gisaguñ nag Kaolack jëluñ ko lan lañ mën a xaar tey ci équipe bi nga xam ne tey moom nga yor tey ko parce que tey préparé naa ko pour tout te nekk naa à bonne condition yoo xam ne xale yi pare nañ ko musiquement pare nañ ko techniquement nag fu mu naa tey ne vraiment tey moom yaakaar naa ne daa ko jël maa ngi ñaan yàlla itam yàlla may ma ndam parce que yàlla mooy may ndam sur El Hadj Ndiaye. El Hadj Ndiaye mooy catégorie 66 kilos bi. 116 kg, kg René René je 116 kg. kilos bi kg, euh, Papa 100 bi bi Sénégal